salaamaaleykum mbokk internet yi ñu seetaan ci seen seen YouTube préféré Ngoy TV ñu siyaar leen bëggwaat leen bu baax a baax ci émission yi ñuy def rek tey ñu fas yéene waxtaanaat ak Serigne Souhaibou Diop nekk ba diwaanu Touba Mbacké tey nag ñu fas yéene waxtaane xam-xam waxtaane itam lu yaatoo yaatoo yaatoo ci mbiru góor ñi ak soxna yi ndax am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi moy yàlla am na góor ñoo xam ne itam ñu ngi mooy yàlla rawatina nag ki am jëkkër di mooy yàlla wala ki am jabar di mooy yàlla ku góor ki nga xam ne dafa am jabar di am xel ñaar ci sa jabar ne day mooy yàlla Serigne Souhaibou Diop am na ci solution jigéen bi nga am am sa jëkkër itam jàpp ka sa jëkkër jii de day mooy yàlla Serigne Souhaibou Diop am na ci solution loolu yëpp incha allahu rabbi dinañ ko waxtaane ak walum seet loolu yëpp dinañ ko waxtaane bu soobee yàlla Serigne bu Diop loolu yëpp am na ci solution waaw benn góor du mën a tiim sa soxna wala sa jëkkër itam du mën a dem ci benn jigéen di fa mooy yàlla loolu yëpp incha allahu rabbi dinañ ko waxtaane bu soobee yàlla waaw ak nekk sa biir néeg itam sa sa jëkkër joxul a gedd bi mu la war a jox wala sa jabar joxul a gedd loolu yëpp incha allahu rabbi dinañ ko waxtaane ci katanu yàlla ak yéen itam dinañ ci laal tuuti góor ñoo xam ne dañuy tux di naan ku bëgg a bàyyi tux wala nga bëgg a bàyyi naan loolu itam incha Allah rabbi dinañ ko waxtaane ak sëriñ soyu bu jóob yaa xam rab la wala jinne wala ay def-def yu nekk ci yow loolu yëpp incha rabbi sëriñ soyu bu dinaa ko leeral ci katanu yàlla kon ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jokkoo ak moom ñu jokkoo ak moom léegi léegi euh, par téléphone bu leen fàtte ne walu rawxaan itam incha allahu rabbi dinañ ko ko waxtaanee euh, lan mooy dëgg-dëgg rawxaan lan mooy dëgg-dëgg ji rab lan mooy dégg dégg jinne loolu yëpp incha allahu yi mën ngeen ñu xaar ci biir émission bi ak Serigne bu Diop nekk fii nii bu diwaanu tuubaa Mbacké acca mu ngi noonu kon Serigne Souhaibou bu fekkente ne yaa ngi ñuy dégg rek mën nga dugg si ñu jël la par téléphone incha allahu rabbi salaamaaleykum Serigne Souhaibou. waaw bisimilah Moussa. maa siyaar naka ite yi. ñu ngi yàlla bu baax kay alhamdulilah. mbokku Touba Mbacké. mbokk tubaay ñi ngi sant bu baax alhamdulilah kay def am rek ñi sant baax kay ñu la nga internet yi lay seetaan maa ngi nuyu ko mboolem ku ñuy dégg te dañuy diglu te baaxoo dégg kàddu gi di la wax de fa nga nekk di la wax salaamaaleykum di ñaanal suñu suñu di ko ñaanal te amin ya rabbi noonu noonu ko ñaanal suñu mbokk julli yëpp képp ku julli rek ñu lay ñaanal rek dal na yàlla defal la jàmm si xaj kon defal amin ya rabbi mucc ni seytaane bu jot too lañu dalal tey ni ma leen ko waxee rek ci ubbite bi noonu lay demee ñu fas yéene waxtaane lu yaatoo yaatu loo xamante ni lëmbe na àdduna muy lan walum seet bokk na ci ak suñu mbokku góor ñi ak suñu mbokku jigéen ñi di nga xamante ni dangay am sa jabar yaa xam nga nekk bitim réew wala nga nekk fii nii ci biir réew mi sa jabar di mooy yàlla loolu yëpp Serigne bu Diop am na ci solution nga nekk jigéen nga njort kane sa borom kër day mooy yàlla loolu Serigne bu Diop am na ci solution Serigne Souhaibou balaa ñoo xuus rek dañ lay bàyyi rek foofu ndax loolu nekk na lu lëmbe Sénégal loo xamante nii moom lii moom xam naa ne boo saganee sax suñu mbokku jigéen yi ñoo koy gën a sàkku ci yow ne góor ñi. <laughs> day na war wax nga dëgg day na war lool ndax yor sa jabar it wax dëgg fa yàlla euh, nga jàpp ka ne day mooy yàlla wala nga yor sa jëkkër nga jàpp ka ne day mooy yàlla doy na neexul lool neexul si xol lool balaa ñoo ñëw ci loolu yëpp sëriñ sooy bu àdduna lépp nit ki mënoo dugg ci moom to seetaloo ko mhm. ñu bëgg rek nga leeral mbirum seet doog a ñëw ci loolu Moussa man képp koom li sa mi sa sit bi di ma diglu mhm. bu fekkee mos naa kaa seetal Moussa moom commentaire am la de ku ma mos a seetal te gisuma la rek bu la neexee mën ngaa commenter suñu ngi gis sama commenter sama digg technique loolu hmm. la nga wax ku seetal wallahi na bu la naan si bi ba ma deedee seet ba léegi lii dégg maa dégg si yow hmm. ndax man suñu borom dama see dafa la dégleel ku ma seet dama lay gis dama mbir dëgg la walaay ku li xaali ndax dafa doon lom ci mbir moom boo ko dugg fa walaay ku li xaali nga seet ko mënul ñàkk donc mëno dugg ci benn mbir te ko ndax ala kulli xaali boo ko seetu rek pour nga am la nga bëgg rek yow ma koy liggéeylu pour mhm. nga am la nga bëgg dina jafe lool dëgg la moo tax bu ma déggee nit di dem ci kenn te seetu lu koy mbiram kooku damaa jàpp day day làmbatu waaye teewul mu mën a gis lam la bëgg jàpp dëgg la donc doomu aadama bala nga mën a gis foog nga seetu ko pare du du mën a lam doog di saafara jàngoro bu sax macha allah siñ soy bu loolu am na solo mais nag siñ soy bu am na benn laaj bu fi ñëw tey xam naa dinaa la ko laaj balaa émission bee jeex mais comme dafa am pocc ñu tànn pour waxtaane ko Mhm. info info yooyu la ñuy njëkk a concentré bu pare ma doog a ñëw ci laaj bi nga xam ne àdduna wérngal képp ñu ma koy laaj wax dëgg fa yàlla. Mhm. waaw suñ sooy bu ñu ñëw rek ci jigéen ñi ak góor ñi nga xam ne dañuy takk seen i jabar bàyyi leen fii nii Sénégal nekk bitim réew. di jàppkane mhm. ne seeni jabar dañ leen di moy wala nga nekk sa sa jëkkër nga jàppkane sa jëkkër def lay moy nga ne am nga ci solution. loolu de xam naa ne ba nga ko seetee ba xam ne sa sa borom ndax ku na xam ne loolu neexu sa xol si bi nga togg sab añ ba pare mhm. ab jàmbur ñëw fële di ko di seq ko si boobu di ko bokk ak yow waaw vraiment te ñëwagoo sa ñam est-ce que loolu neex na ñaa mhm. na xam ne xam nga ne soxna moom kenn ñëw ko yàlla bokkaate moom ku mu kenn ko si soxna mu yem si yow dëgg la léegi nag képp comme si ne ba soxnaam dafay dafay dem mhm. dafa yëngu si ay loxoom bu si man am na lu ma ko si defaloon si bu ma si defalee kenn du ko timati kenn doon góor ku ko timi doon góor allahu akbar borom këram du tim borom këram du tim geneen góor gu geneen jigéen gu mom hmm lu dul farata xana moko ko tax a mu dem ni wuti soxna waw waaye bu dul lolu keneen kum di gënu jigéen gum ko gën seqal ngir ay hmm mom mom ala kulli xaali du du mën a yegg la ilaha illa allah borom këram dong borom këram dong la mën ci ko ba jigéen nga borom këram dong la mën a seqal mën a yegg hmm góor gi sa bu solo dal dem ci jigéen di ko seex do ko ah, awram misal awram dal ci du du yëngu. du yëngu du def dara danaan cocc rek loolu nag alaa kulli xaal la koy dimbali moom. Mhm. la koy dimbali bu ay yombi diini ba mu ko joxee loolu ba mu def ko. ilaa mhm. yawmi diin du ko defati te ku mu mën a doon nag da am njort sa soxna rek mooy yàlla wala nga njort sa borom kër yomu si say loxo mhm. mi ngi demaat ci geneen góor di geneen jigéen di seq moom soo jokkam am na lu sobi mu la ko defalee dootu moyetu yàlla bi ilaa yawmi diin laa ilaaha illallah waaw ndax sunu ñi baax ñi dañ jël soxna dañ koy denc doo ñu sawar sax génn jigéen sax doo wut gën génn loo kër ko lu mu yëngu yow soo doon génn. dëgg la. waaw suñu góor yàlla tamit boo xool tamit loolu bëri tamit doon góor jigéen ñu bëri ñu doon am na ñu bëri ñoom si ci nga yónni ci nga yónni jëfandikoo yow si boo mm-hmm. bu mm-hmm. da nga koy misaal seen seen mbokk soxna yi am si mm-hmm. da ngay gis génn demee si aaw bi. macha allah dafay am bànneex waaye bu demee si ñaari bi dafa am dara. dama kaa misaale noonu rek noonu nan la koy defee ba nga xam ne suñu tuuti ñaari sa borom kër moom ëllëg yu ma du mën a ma yàlla xanaa lu hmm. ko tax a jub mu dem si jigéen góob si da koy wuti soxna hmm. waaye bu dul loolu kenn ku bëgg a seqal comme si njaaro la bëgg a seqal moom du mën si moom dara mais maanaam foofu suñ sooy bu hmm. euh, ñaari jigéen ñi nga xam ne dañoo bokk jëkkër dañoo bokk jëkkër ñoom ñaar kii di aaw kii di ñaareel kenn dama bëgg mu leer quoi ñu ñu ñu wax ko mu leer kenn du ñëw ci ne defaral ma sama jëkkër ngir bu ñëwee ci man yëg boppam kene bu demee ci sama morom du yëg boppam loolu moom bokku ci loolu moom dama ko liggéey ba ila yu diine wallahi la xasim ndax gis naa ñu koy liggéey na man na loolu seexloo naa di ko liggéey dëgg la yaaram ndax kenn ku ne ñaan nga yàlla booy sëy sib sëriñ ñaan nga yàlla am fa njaboot dëgg la léegi nag boo demee ba jëm rek jéng di def loom si sa bërëm gër pour mu ñëw si yow am si yow kuufaar bu demee si kër am dara loolu moom ak bokk bàkkaar na si mujj juddoo. dëgg la te lépp loo si dee xeetu bàkkaar man dama ko def. dëgg la. waaw man foofu doole def. macha allah mu mu am lu am solo loo xam ne wax dëgg fa yàlla euh, mënuloon ñàkk ñu laaj la ko ndax yenn saa nga gis góor boo xam ne nee na damay dem ci sama ñaareel am mën dara dem ci sama aaw du ma mën dara. te loolu yëpp loolu moom képp koom si képp koom si jàngar képp koom si jàngar jooju mi ngi si yow te yaa ngi sa bopp. Mm-hmm. soo ñëwee si moom man dàqale ko ba naa da koy dindi. dëgg kep ku ci da ngay dit japp ni yow sañ aw bo fa demé nga am doole nga am si moom dara te soo demé ñaar bi am dara So ñu ma tax jàngoro ci service allahu akbar ñëkkul am ñu koy dund bismillah musa sëñ soy bu du ma la bàyyi foofu ndax laaj laaj eh, laaj dafa am benen laaj bu ñew sama xel sëñ soy bu awray gor est ce que mën nañ ko yok awra de bu ma de ma degge ñu leen koy yok man dana ma jaxal lool ndax man lima jang ah ña koy def nak man ko leen ko hmm ndax ay sidit ku ne xam ne ne sutite mooy mooy dund mhm. awra mën naa dem ba dee mhm. awra di day dee mooy mooy moo dundatul sidit yi mhm. dund ak say walax njaay ndax daa gis comme si dana séq ak soxnaam di di joteeg moom man niw mi dana joteeg dana dana dem si soxna si waaye daanaka day woyof ba ak njaboot mën na see a juddoo loolu nag loolu nag na laa jox lom si boo ko jëfandikoo sa awra dana dundaat te boo si dem macha allah say walax ne na ko dox. Mhm. loolu daal laa si xam. mais góor yi tam góor yi tam mën nañ yokk kattanam ba mu am. 60 ans tooy mel ni 20 ans la am. xanaa déggoo si suñu mag ñi baax ñi bu njëkk daanaka kër gi ñu yore dana yore lu mën ñeenti soxna. Mhm. te foo leen fekk dañuy màggat lool. waaw te kër gi du mos a yëngu du def dara danaan cocc. dëgg la. loolu la ko waral. Mhm. lu waral loolu sa secret. waaw ma ngoog léegi nag loolu nag am na loolu si toog loolu si xam nañ ko loolu si bu ñu ko defoon boo yoroon ñeenti soxna dama laa ne daal juróomi soxna sax boo yor ko mhm. la mhm. a ilaaha illallah te loolu lépp si arxuraan laa ko sukkandikoo barke Sëriñ Saliou dëgg bisimilah jërëjëf loolu am na solo wax dëgg fa yàlla moo tax sëriñ sooy bu gars yi dañ lay nam moo tax waroo fii géej daal. <laughs> ah di gën di gën di allahu rabbi ma leen di wax ne yàggatul tuuti xam naa yi bëgg ngeen gis jëm ji mais yàggatul tuuti di ngeen ko jàkk di ngeen jàkkaarloog jëm ji. Mm-hmm. incha allah suñ sooy bu euh, ñu ñëwaat rek ci suñu beneen laaj ci wàllum seet bi ma waxoon moom la ñuy commencé yaakaar naa euh, nit ki mënoo dugg seetaloo ko te loolu yëpp balaa ngay dugg da nga koy seet ba pare itam waaw loolu xam naa ni danañ si lu mën a gis doone dañuy dugg ne dañ koy seet ba pare du mm-hmm. si dugg du dugg ko dëgg la jërëjëf euh, acca ñu dem ci deuxième laaj bi siñ bi euh, jigéen ñi nga xam ne itam dañuy jekki jekki di fay xam nga fay mooy tak sa jabar mu jekki jekki dem am fi ñaari weer wala ñetti weer dem bi seen kër loolu itam solution mhm. loolu nag Moussa mhm. su ma waxee dëgg di yàlla tax li may si liggéey man maa ngi ko liggéey si ginaar buy boof ginaar buy boof ginaar buy boof xam nga ko ne xam na ne moom foo ko fekk ma nga sa nen ya mhm. gis nga suusu ginaar googu muy boof ginaar guy boof am na lu ma la ci liggéey loolu ci bu ma ko boolee am na lu ma koy mooñee bu ma ko boolee moom ba jox la ko mm-hmm. ba ilaa yóbbi di sa soxna bu fayee dina si kër gi day a mm-hmm. mm-hmm. soxna bu wàccee si kër gi war ngaa fexe ba bara ngaa bara moo bis bi mu wàccee ba dij si kër gi ba xam ne moom xelam fu mu a nekk xelam si yow lay nekk dëgg la bu génnoon si kër gi sax six jours danaan dama ñibbi du ma fa am. Mhm. loolu xam nga am waaw loolu nag dama ko def bu fekkee sa soxna dafa fay nga bëgg mu ñëwaat te am na lu ma la jox loolu mhm. nga takk si laal bi ala kulli xaali day ñëwaat bu gën a gaawee. dëgg la donte kooku si tamit bëgg mu ñëwaat am na lu ma la jox loolu ko joxee. Mhm. nga def ko ala kulli xaali sa bërëm kër ñëwaat say loxo. dëgg la. am si macha allah muy lu am solo ndax wax dëgg fa yàlla yaakaar naa ne benn góor bëggul takk sa jabar mu won la ginnaaw kon solution baa ngi noonu ci Serigne bu Diop nekk ba diwaanu Touba. kon Serigne bu ñu dugaat rek ci mbirum li nga xamante ni mooy yàqu-yàqu. Mm-hmm. nit itam yenn saa yi day dem ba mu yàgg ay jafe-jafe dab ko ay mbiram bi yàqu loolu lan moo koy waral jinne wala ràbb xam nga Moussa ni dana jëf yor teraanga ci du jeex. Mhm. te këram sax ab birig mënu ko fee teg. dëgg la. te loolu li ko waral bari na lool lool rab dana ko waral. rab dina ko waral. rab man naa téye sa alal suñu tool yi ba nit ñu bari suñu tool yi dañu jaam naan loxo bu gën. Mhm. loxo bu gën loxo bu gën xam nga lan moo ko saafara. Mhm. billaahi la si daal gi ñaan ak alxuraan ji may xëy suba di si gont di si yendu. gis nga boo wutee ñi am ndox bu ko ñu liggéey nii. ba sotti si ndox mi ndox moomu ñuy buñ buñ buñ buñ bañee pare ndox moomu ñu sotti si cin li tàngal ko. waaw ndox moomu sotti si pour setal cin li. pour setal cin li. moom boo ko bindee. waaw boo ko jëlee nga nga bind yëpp léegi fa wax ay di boo ko bindee. Mm-hmm. nga boole ko ndox moom nga jël ko di ko raxasoo ala kulli xaali ndox bëndee saafara jëm ndox bu gën a mm-hmm. ndox bu gën a bu nee nit ñi ndox bu gën xam nga moo sax nit ñi mooy mm-hmm. rab moo ko waral ndax am na ñoom si li mooy ñoo dalee dara rab mooy waral yàq seen i mbir wala lu si leen alal di yàqu lu mën a yor alal ju jiru jeex da cee jig yàqu ñu cee jig di xool di xool seen bopp di bidaa seen bopp seen alal fu dugg mhm. xarit moo ko saafara dëgg la man dong si la ci loolu laay saafara macha allah waaw si laay saafara jàngooy doomu aadama si sooy bu daal xam-xam ngay teg ci taabal bi kaal waaw macha allah waaw xam naa balaa ñoo tàggatoo suñ sooy boo xam naa am naa dinaa laaj dan laaj ban nga bëgg mujjee wax bëgg a wax mais euh, laaj bi nga xamante nii ñu ma koy laaj suñ sooy bu chaque jour mooy kane nit yi nee nañu dañuy dem ci ay sëriñ ñu jox leen ñu sangoo sangoo sangoo ba sonto ñu gis résultat yaaram loolu la Moussa mhm. ñaari yi mën na kaa waral mhm. def def def def def man def def mën na kaa waral waaw ñaar tamit boo si demee ñàkk xam sa biddiw ban heure lay génn waaw ñaar boo xamul heure boobu muy génn ñaar pour nga songo saafara mën naa dem ba seen seen bit ba heure ba war a génn boo fekkee gis gi songoo ko heure booba ndax suñ sooy bu dogguma la sax dogguma la waaw waaw dama bëgg gaay di déglu vidéo yi ba mu jeex ndax xam nga li tax laaj bi muy mooy deuxième fois ñu raaj la ko to li nga leeraloon hmm, kon bu ñu seetaanoon émission yu njëkk yi ci ginnaaw Mhm. mën na am sax duñu laajaat lii mais xëj na dañ dul top vidéo yi ba mu jeex mais dañuy topp vidéo yi ba mu jeex ñu xam xam ñu dégg xam-xam bi nga xam ne moom lañ ciy waxtaan bisimilah. Mhm. xam nga ñaare def def mën na kaa waral. Mhm. rab tamit mën na kaa waral. dëgg la ñaare ñàkk xam sa biddiw heure bi muy génn mën na kaa waral ndax ñaare boo xam sa biddiw heure bi bi war a génn. ñaare boo sangoo saafara tasante sa biddiw jamono yooyu sa muur na lëndëm na. ñaare boo moo war a day lëndëm lool pour nga gis sang sang mën naa jafe. dëgg la. dañu si bëri bu la jox saawar nga sangu dañ naan la sangu rek. Mhm. ñàkk xam heure yooyu nag ñaar mën na laa war a indi ñaar mhm. mhm. bu sangu saawar da ko sa da koy gis. dëgg la. wala naa si doole gi ñoom. am na ñoom si amuñu doole koom si amuñu xam naa ne mën naa ñu ñuy woo mën nañu ñëw jot. waaye képp koom si mu sa loxo jot mën nañu jot. waaw xamoo sa biddiw ba mënoo ko ba xam ba sa biddiw ba ay rëwër génn xamoo ko mhm. defal ko boo ko defee si suuf boo sangoo saafara da nga ko gis dëgg la ndax saafara da mhm. am yoon mu ko war sangoo am yoon mu ko war sangoo da mhm. boo xamul na laa xam ne day sangoo kaara nga faaw daal keroog kas biddiw ba xam biddiw sangoo ko boo sangoo kooku ba ilaa yoon bi diini kenn du ko mën a liggéey dëgg kenn du ko man a jàpp kenn du ko mën a jàpp si ko sëriñ ku koy jéem a lëndam ay mbiram day lëndam kooku. ku koy jéem a sëriñ ay mbiram day lëndam si torof torof lay nekk. waaw si allah muy lu am solo wax dëgg fa loo xamante ni gars yi comme ni ma ko waxee saa su ne rek suñ sooy bu nag woo ko jot ko yomb na mais boo ko woowee jotoo ko rek mën nga ko am envoyé whatsapp dina la tontu incha allahu rabbi ndax yenn saa yi day xaw a jàpp lool lool lool. xam naa waaw. xam nga bëri na ñoom si dañuy jékki di génn dara. di waaw waaw. jékki-jékki génn génn sarax. waaw sarax. waaw loolu nag ñoom la. dëgg la ndax du la wax ni gént goo gént dafa am lu mu la image image bu mu la wan. Mm-hmm. image image ba mu la wan nag loolu nag faaw nga xam sa taxaat ba mooy tax nga mën a génne loola mën a lii. waaw ndax da ngay gis nit comme si day génn dara rek xëy suba génne dara. waaw fekk na moom moo tëddee mbiram taxawul loolu. dëgg la de. sarax bépp sarax baax na waaye sarax dafa way dafa yooyoo nga xam ko ba doot ko sarax. Mm-hmm. soo xamul rek mën naa booleeg sa mbir waaye sarax bi nga xam ne da nga kaa jël coobare sa coobare bopp nga jël jig tey génnew ñaar fukk sarax bu kenn te yàlla tax sarax boobu moom mun laa tëj waaye sarax bi nga xam ne tey da ngaa tëdd bu guddi am lu génn génn sarax hmm. sarax boobu mën naa laa booleeg say mbir te ñun ñu xamuñu ko ñu bari nag la Moussa képp a firi la xam la sarax ba a la nga hmm. la lam lay wan lam a dox mën saa yëg dëgg sarax saa bu génn rek boo génn a danaa war a xam gétt gi kan ku mën a firi gétt mu firi la ko su ko firilee. Mhm. nga génne sarax booba. macha allah sarax boobu mu mënut a génn ndax ko. dëgg la. waaw xanaa bokkut ak sarax bi nga xam ne man maa ngi ko toobaree sama toobar bopp génn gis ko ma ma génne jox mhm. sarax boobu mu wëññiwul dara. Mhm. sarax bi nga xam ne moom sarax boobu moom wala ku xale ku koy def war nga kaa a gëstu baax na Moussa. jërëjëf Serigne Soyibou. jërëjëf xanaa su fekkente ne amul leen loo bugga a leeralaat ñu laaj la beneen ah, laaj bi. ñu doog a xam naa ne. nan nan nan tàggatoo fi comme que émission bi moom wax dëgg yàlla ñu bëri ci kër ko waaw waaw. ceeb suur na ni dafay par par par di leeral par di leeral par naka naka allah ndax xam xam-xam moom dana wax ni géej la. Mm-hmm. bu jeex. dëgg la loo ci wax dana des na leneen. dëgg la kon nag nan yemandikoo fii bu ëllëgee ñu ñëwaat indiwaat leneen. incha allah. ndax dama ci comme ko nag ñuy woo di nit ñi di ko sàkku ah, mhm. ya. mhm. si ñoom waaw dañ koy sàkku dëgg ngir bëgg ngir bëgg ñu leen leeral mbirum xam-xam dëgg dëgg dëgg la kon naan nañ defar ndànk ndànk ndax lu yoon la danoo jëm si yoon te yoon wi yëggul si dëgg la kon nag nañuy def ndànk ndànk ba kër ñu yegg dara jëf yaa ya. jëm ñu yoon ya, sax doon sa yegg ndax xam-xam li nga xam moom mënuñu kaa jeexal macha allah xanaa sib sib dañuy wax rek lan li si yàlla may donc incha allah kon jërëjëf émission yi bu lay gërëm bu baax baax yaaram jërëjëf jërëjëf sant naa la baax jërëjëf yàlla na yàlla sori. amiin barke nente bi jërëjëf acca mu ngi noonu euh, Serigne Soyibou Diop nekk ba diwaanu Touba moom lañ doon waxtaane noonu ci xam-xam dégg ngeen ko yéen a koy sakku saasu ne moo tax chaque su ñu mënoon sax def émission ak moom mais jot bi moo ko du moo ko ko dun may te comme dafa yor ay xele yi itam yor ay daara alxuraan mënuñu chaque jour wax dëgg fa la ñu koy woo téléphone di def ak moom ay émission moo tax chaque trois quatre jours dina génn tegal leen quatre cinq laaj ci taabal bi ngeen jëriñoo ko numéro baa ngi noonu ci écran bi woo leen ko ngeen dem mu seetal leen seet bu wóor te wóor suñu mbokk moodu moodu yi nekk bitim réew jàppkane seeni jabar dañoo nekk fii di mooy yàlla wala jigéen ñi nga xam ne dañoo jàppkane seen borom kër dañuy mooy yàlla nañu woo Serigne Souhaibou Diop moo yor solution bi jaajëf oui pour yow mi nga xam ne da ngay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew Ngoy TV da ngay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day nañ Ngoy TV daal c'est le meilleur pare nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV le meilleur c'est donc abonné sur Ngoy TV ngir di actualité ak information yu leer service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 Voilà 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 TV c'est le meilleur abonné di am say actualité ak information yu leer TV <laughs>